maa ngi nuyu ñi ñi fi teew ñëpp kenn ku ci nekk ci turam ak santam di la gërëm bu baax suñu wax di jégalu bu baax a baax si euh, empêchement bi ñu amoon ba tax ñu fee teew li ñu ko bëggee woon di nuyu bu baax euh, sëriñ Amin la gërëm bu baax ci liggéey bu am sol di nga def ak kilifa yi fi teew yëpp te bu ñu sañoon kenn ku ci nekk ñu jaar ci sa tur ak ci sa sant euh, di wax ne rek suñu yittee yéene bi ñu amoon mooy fekkee waxtaan bi yëpp ndax jox nañu gis nañ koy ci liggéey bi nga xamante ni sëñ Amidou def na ko te ko ñun ñëpp ko defal defal ko yoonu murit defal ko umma islamique yëpp waaye defal ko Sénégal yëpp ñu jokkoo ci man ak moom am ci waxtaan ma xam ci ne yéeneem sax mënu ko woon a def ci téere moo demee noonu da ngay rek te dañuy wax ne booy informé da ngay choisir yow yaay tànn li nga xamante ni jàpp nga ne soo ko génnee mu amal nit ñi njëriñ liggéey bi nag bi nga xamante ni moom la def ci maam Cheikh Anta nekk liggéey bu am solo boo xamante ni fii mu feeñee sax ci Sénégal dafa tax solo si gën a tee gën a tee mu gën a amati solo ndax euh, dañoo toll ñun ñëpp li ñuy wax ci croisée des chemins mooy foo xamante ni bu ñu fa toll am yitte réinventé am yitte am lu bari loo xamante ni dañ koy yeesalaat yeesal bi nag daf ciy bokk ci ñu mettre la lumière ñu wane li nga xamante ni moom moo tax euh, moom moo ñuy ressembler ba pare di ñu rassembler ni ma koy waxee jamono bu nekk maam Cheikh Anta nag dafa bokk ci ñooñu nga xamante ni tey ci li ñuy construire jàpp ne moom moo war a sous-tendre développement économique et social yépp moom mooy un capital humain de qualité réew yëpp loolu la ñu rawante réew yi raw yëpp ba ci réew yi mujjee développé boo jëlee dëkk bu mel ni Malaisie bi nga xamante ni exemple la ci jamono bi soo fa eggee di nga gis ni ñu jëfandikoo seeni seeni mag ni ñu jëfandikoo ñi nga xamante ni tamit am na jamono boo xamante ni ñoom ñoo taxaw taxawaay bu am solo ba ne mbir yi jàpp nañ ne war naa am fu mu war a jógee am fu mu war a dem maam Cheikh Anta ci ñooñu la bokk defoon ko nag ci keppaaru ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul may wax ne au delà d' être une personne physique nii dafa nekk moom une idée une pensée une façon de voir le monde Cheikh Ahmadou Bamba c' est une façon de voir le monde c' une vision du monde ndax àdduna lépp question de vision la ay vision yuy yuy daje la di sokkorloo léegi nag rapport de force la bu mën benn bi tegu teg tànk ci kaw beneen bi loolu la ñuy wax jamono bi l'idéologie dominante am benn borom xam-xam bu tudd Francis Fukuyama tuddee ko euh, la fin de l'histoire daal di wax ne àdduna léegi daal jeex na ndax vision ndaxte euh, ndax idéologie dominante gagné na ba pare muy monde bi nga xamante ni moom la ñuy dund nii. am keneen koo xamante ni dafa tudd Huntington daal di koy tuddee choc des civilisations te c'est la u la réponse de Cheikh Ahmad Bamba est importante et que Mame Cheikh n'est qu'un élément de cette réponse benn élément la ci réponse boobu nga xamante ni Serigne Touba indil na ko humanité ci choc des civilisations boobu Léopold Sédar Senghor wax lu am solo mooy le rendez-vous du donner et du recevoir waaye moom am na lu ñu waxul Senghor mooy ñun ci table de l'universel boobu quest que l'homme africain amène sur la table de l'universel Qu'est-ce que le Sénégalais amène sur la table de l'universel qu'est-ce que l'Africain amène sur la table de l'universel tàmbali woon liggéey nag muy ñoom maam ñoom Cheikh Anta Diop waaye ñu ko tàmbalee ñoom dañoo ñoom it dañoo fàttee jëfandikoo ñoom maam Cheikh Anta ak ñoom Cheikh Ahmadou Bamba yooyu loolu moo tax ba ñu demee ci table de l'universel ba ñu am jafe-jafe bu baax a baax ci li nga xamante ni ci lañ ci teg loolu moo tax sëñ Amidoune dafa ñëw dem exhumer génne liggéey boobu nga xamante ni am na ci Sénégal muy liggéey bu am solo boo xamante ni tey bala ñuy mën a converser avec le monde ba ñuy mën a ñuy converser avec l'Afrique il faut que d'ailleurs d'abord ñu xam yan élément la ñuy yóbbu à la table de dafay am nag loo xamante ni c'est une autoglorification boo xam day day am wala une célébra célébration de de légo boo xamante ni wuute na ak lifi fi Serigne Touba indi woon te ñoom maam Cheikh Anta jëmmaloon ko muy nekk le prototype du produit bi nga xamante ni moom la doon indi à la table de l'universel maam Cheikh Anta ci la bokkoon Cheikh Ibrahima Fall ci la bokkoon ñoom ñëpp ci lañ bokkoon mais léegi ñun liggéey bi nga xamante ni moom la war a def tey jii mooy bii mu def tey mu war ko def ci bind war ko def ci wax ñu war koo wane tamit ci taxawaay xam ne am nañ bu wóor loo xamante ni war nañ ko yóbbu à la table de l'universel tey te lu ama am solo la bu ngeen xoolee évolution dëkk bu mel ni Turquie tey jii bu ngeen xoolee ku mel ni euh, euh, Recep Tayyip Erdogan bokk na ci liggéey bi muy gën a def mooy que ne développement du économique rek du économie rek dafa am développement boo xamante ni mooy une ambition immatérielle boo xamante ni war nga ko mettre aussi sur la table et cette ambition immatérielle là au-delà des ponts au-delà des routes au-delà des aéroports dafa am lu war a sous-tendre nit ki te mooy mu xam d'abord boppam te xam boppam mooy mu xam cosaanam war a bañ a am complexe tey jii booy bokkee ci waxtaan ci cérémonie yu mag yi ba ne maam Cheikh waxoon na ne wala nga ne sëñ Fallou waxoon na wala nga ne euh, Cheikh Ahmad Bamba waxoon na intellectualisme sans âme bi ñu am duñ la ko mën a nangul donc il faut que ñu décomplexé ko il faut que ñu gën ko yaatal il faut que ñu génn aussi ci cloisonnement yi il faut que ñu décloisonné ko su ko boobaa nit ki mën nañoo wuute ay pas-pas ñu mën a jëriñu ci moom mooy li may wax souvent Cheikh Ahmadou Bamba te su ma ko waxee wax maam Cheikh Anta mooy que dafa accéder à la à l'universalité parce que dafa incarner ay valeurs universelles donc ñëpp war nañ ci jëriñu bi may ñëw sànq maa ngi gis benn pharmacie Martin Luther King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 Tawfekh Production. ndax ah, lii am lépp tawfeex ci sëriñ bi mën a may. gën noo gàtt noo tawfeex ci sëriñ bi.